barakatuh mbokki di tedd yi mbokki tari bi murid bi ñu ngi dellu siwaat fii ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké al xalifatul aam li borom bàyyi ko fi lu yàgg lool te ànd ak ba naan yi xam ne am na ko ci lislaam am ko ci yoonu murid borom may ko kàttan ak wér lépp mu mottali kon kàddu yi ñu yëkkati ci liggéeyam ak ci lam lañ koy defe ni ñu ko baaxoo defee waxtu wi bu màggal Tuuba bi jub see ñu daje ci kër Sëriñ Tuuba bi ndax màggal bi saa su jàllee dañuy tàmbaliwaat rek di waaj a déglu waaye Sëriñ Ousmane mi nga xam ne mooy coordinateur kuréelu màggal moo koy jiite.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 ni ma ko daan defee kilifa ñoo ko jëkk rek tàmbalee si Cheikh Mouhamadou Bara ak Cheikh Sidi Mokhtar noonu laa ko defewaat ci moom man ma ci tàmbali delluwaat ci moom laajaat waaye boo agsee rek mu ne la liggéey bi moom dal na sama xel lu ci jub ci yéen rek mën ngeen waaye teewul loolu lépp la ndigal moom saa su agsee danga koy yeesal laaj ko nga xam ne ak liggéeyam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 te xew-xew diine bu rëy waaye itam wàllu koom-koom tabis bi képp koo xam yaa koy seetu di ko taxawu war nga saa accès nga feex ba fa nga tolloo ndaaw nga weesu ko bu déggee loolu nag màggal bi moom li koy jagal borom boo ko yàggalee ñun li ñu ci wax rek mooy lecca di nag nag bi góorgóorlu ba àgg ci ba waaye loo koy jagal loo koy defal moom bis bi ko loolu moom gëm nañ ko te sóoraal nañ ko ci liggéey mooy bisu mag itam boo xam ne li ci Serigne Touba daali woon wax ne bu agsee na ko ci ñëpp santale yàlla moo tax ñu di ci góorlu di ci def yitte di ko di ci def positif di ko sell euh, fii mu toll nag ñëpp xam nañ dayo bu mu toll ñu jóg nag ci tàbbi ci biir ndax CRD bi ñuy war def njariñ ndax defoon nañu CRD Serigne Ousmane moo ko jiite woon ànd ko mooy comité bi yëpp ñu defaat CDD Mbacke moom itam jàll na ci jàmm CRD bi rek ci laa daa dem ànd ko bokk yi Serigne Serigne bi ñu boole ci liggéey bi ñu tàmbali ko incha allah ba li topp ci liggéey bi lépp lu ñu ci war a àgg ñu àgg kon nag màggal gi agsi na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 lu jéege jege ñaar fukki milliards wala lu ko mat tàbbi na ci biir lépp di àll bi taalibe Sëriñ Tuubaa loolu itam di ndamaat ndamaat loo xam ne ni jumaay Tuubaa nekkoon ndamul yoonu murid la itam moo la defewaat kon xew-xew boo du xew-xew bu tuuti ci lislaam du xew-xew bu tuuti ci yoonu murid réew mi incha allahu nag ñoom ci nañ ko tënke xam naa ne bu sëriñ bi di wooteel boppam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 ñu defar plan bi mu leen di jubbanti ba bëgg mu mel na yàlla def ca pàkk bu njëkk ba mu yabaloon Cheikh Mahmoud Mountakha mi tey mu mujj bi ñëw ci xilaatam Cheikh Mahmoud Lamine Bara Mbacké ci la ma liggéey Cheikh Mahmoud Lamine tegaat xeer ci pàkk bu mujj bi suñ borom jotu koo dogal waaye moom mu dolliwaat ci juróomeelu sooro bi ne ko booy juróom bu tedd ba defoon Cheikh Mouhamadoul Fadel ndax bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadoul Moustapha bàyyi ko nag ba ci raase bi Cheikh Mouhamadoul Fadel Mbacké dikkee di ko àggale ci la ci dolli juróomeelu sooro bi mooy itam kon loolu taw féexaat la ci moom ne ko booy juróom ba defee ba ca di saatit bi fi Cheikh Mouhamadoul Lamine Bara Mbacké bàyyi ko Cheikh Sidou Moustapha Mbacké ñëw moom ñëpp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 ñu amaat yitte ak positif defaat ko moom ko tàmbalee rek at mu jotati semaine bu lëmb boo xam ne mi ngi tàmbali mi ngi tàmbali mi ngi tàmbali le 16 ba le 22 ca ñoom itam tànn nañ ay tem yu bare bëri ngir waxtaane ko ci bis bi bokk na ca taxawaayu murid ci biir France ci diiru bi ñeent fukki at yi weesu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 ba ca des mooy li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ko suñu borom waxoon ci alxuraan ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan ghaliizal qalbi lanfaddu min hawlika kon nit ñi war na am na ci thème boo xam ne ci lu muy bisum ñeenteel bi mi ngi jëm ci kasbul xalaal te mooy fàggule leew daanaka mooy finance islamique yi ngeen di wax ne waxtaane léegi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 ci ndigal li mu joxe ci li weesu ci sécurité canal yi ndax loolu lépp yërma yërmaane ju mu am ci yi dëkk Tuubaa rek la te xam ne màggal yi ñëpp xam nañ ne tàbbi ci nawet incha allah buñ demee ca CRD nga xam naa bokk nañ ci dañ fa war gën a waxtaane ndax dëkk bi mbedd yi taay yi bari na kenn amul foo jaar te màggal yi mën naa am mu tàbbi ci biir nawet bi xëy na yàlla rek xam ndax inna allaha indahu ilmu saa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 ndax dañ ko daa ubbee njàngu alxuraan ci bëccëg bi ci jumaa ji bu guddee ñu def fanaane ko def njàngum xasida ci jumaa ji loolu itam buñ ci àggee nañ ko daa defee ñu itam liggéey bi ñu daa def ñoom fas nañ ko yéene tàmbali ci bis bu njëkk ci weeru safar mooy baas bi ñu def fii ren nag dañ ci am xalaat boole exposition bi ndax daaw dañ ko doon def dër nag waaye gis ne sori na mu xawoon na tarde ci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 ñoom kon loolu bokk na ci liggéey bi ñu njëkk a tàmbali ci safar bi waa kuréel ak Serigne Cheikh Thioro Serigne Cheikh Thioro mu Serigne Mor waa kuréel intig bi ñoom itam liggéey bi ñu daa def ci màggal yi comme ni ko ñoom day rawtur ay defi ñoom itam am na yuñ daa baaxoo di ko def ci dalal ay borom di gëstu ci bureau sëñ gëstu ci biir kilifa yoon yi ñoom itam liggéey bi danañ ko tàmbali ci premier safar bi ba àgg ci bisu màggal yi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 di doomi Serigne Mor Anta Sali buñ fa jógee itam danañ dem kër sëriñ Serigne Manoumbe Mbacke moo itam ñépp xam nañ lim doon ci biir yoon yi ak lim doon ci sëriñ bi ak diggam Serigne bi kon ñoom itam kër yooyu bokk na ci yéen tànn ngir fas fa yéene dem leen ngir xentu seen i jeexit ak def ay gëstu yaatu yoo xam dana am njëriñ nit ñi ngir ñu gën a xam ñoom seen taxawaay ci biir yoon yi bu demee ba màggal gi gën a jege itam ba bañ ne suba la ginnaaw suba la.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 mbirum Sëriñ Tuubaa nag fu ñu koy waxtaanee fu ne mu ngi tàbbi ci wa man yu'azzim hurumatullahi fa huwa xayrun lahu wa man yu'azzim sha'aa'irallahi fa innahaa min taqwal quluub kon loolu rek lañ amoon ci kàddu yi luñ leen di wax buñ demee ba weesu màggal Daaru Xudoos rek nañ ko daa defe fii toog ak yéen waxtaan ñi ñu war a waxal laaj yi ñu war a laaj te fekk lépp gën a tënk boobaa darañ ci àggaat leer laaj wax yi kon nag ñu ngi sant ñëpp di sant bi bëggoon naa sax lim tur yi waaye damay bàyyi bu ca ndaje ba ca topp kenn ku ci ne ma fàttaliwaat comité yi ko commission yi bu ci ne ka ko jiite ak taxawaayam da tax ñu def ko waaye ñooñu ñëpp ñu leen sant leen gërëm bu ñu àggee ca ndaje ñaareel ma ñu door ko leer leeralaat leeral mboolem ñu ci yëngutu ak ku ci ne la ngay def ak la tax ñu dénk ko kon ñu ngi ñaan màggal ñu tàbbi ci bisimilah waaleykum génn ci alhamdulilah day ca tawféex.